قصائدي من معجزات المنتقى صلى عليه من هداه وانتقى قصائدي من معجزات المنتقى صلى عليه من هداه وانتقى هاجت قصائدي قلب كل من له سعادة ولن خاد الأمن ahousubillahi mina sheytaani rajim a rahmaani rahim mbokki asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu mbokk yi nga xam ni ñooñu seetaan ci biir réew mi ak ci bitim mi yëpp ñu ngi leen di nuyu tey jiital bu baax ñaanal Serigne Touba Cheikh Mahamadul Muntaxa sunu borom doli koo sàmm ba naa li mu naal yëpp ci liggéeyal Serigne xari Xadimu Rasul yàlla subhanahu wa taala jàppale ko ci may ko kattan te mu yeggale ko te ànd koog taalibe yëpp mbokk yi en direct Touba sous le ndigal général des Mourides sëriñ Mouhamadul Mountakha ñu ngi koy ñaanal bu baax a baax Mbacké mu yàgg fi te ci bésub xasida bu màgg bi nga xam ni moom la wute fii ci Touba muy bés boo xam ni bésub jàng alxuraan la jàngub xasida istixfaar ak i salaatu ala nabi ñu ngi nag ñun fii ci liwaawul xam di di mbaar mi nga xam ni moo nekk ci pencum Daaru Xudóos ñu nekk fi ak ñetti kuréel yu fasantikoo muy wilaaya waaye tam kuréelu mafatihul bisri waaye tam kurel gi ñuy wooyee ñaari guddi ndakaaru ñoom ñoo koy dundale fii ci mbaarum Liwaawul Hamdi ñu gën koo xam ci mbaarum Daaru Xuddos mbokk yi tey jeudi tombeek fukki fan ak ñett ci weeru juillet atum 2023 ba tey tombeek ñaar fukki fan ak ñett ci weeru tabaski ci atum 1444 ci gàddaay gi kon dañoo fas yéene rek ànd ak yéen ci bés bi nga xam ni la Cheikh Mamadou Mountakha woote ci Touba ci alquran jàng xasida istixfar ak salaatu na bii ñu ànd ko yéen fas yéene lépp loo xam ne dina tukkee fii ci mbaarum daaru xuddoos muy xam di ñu digtal leen ko ba ngeen man di ko am en waaye itam ñu xam ni mbokk yooyu ñu tudd léegi muy kuréel yi ñu ngi fële ca tokkoor ba war fa togg lu tollook une ci ay xéewal euh, ngir fas yéene ko def ci bés bu Cheikh Mamadou Mountakha woote kon rek dañuy leen di bàyyi ak programme bi ndax kuréel yi tàmbali nañ ñu ngi ci biir mbaar mi di yëkkati xasida yi kon dañuy ànd ak yéen kuréel yi ak animation yi nga xam ne mi nga am ci biir mbaar mépp bu ko defee ñu mën leen koy digtal en direct waaye itam fas yéene itam dem ci waañ yi ak mbooleem foo xam ne rek euh, gaa yi baax yi ñu ngi fa di dundal bés bi fas nañ fa yéene dem digtal leen la fay xew jàngeen jëf غريبا مهينا من عزيز المنام هداينا بابنا كنتها لكل بجاه الذي قد سين الحب والغربى في سر وجهل وارتجي صلاحي واصلاحي في اهل وترضى سلمت الاولى لله ثم قال ¡Saludos! los ذات المنتقى صلى عليه من هداه وانتقى خسائدي من معجزات المنتقى صلى عليه من هداه وانتقى هاجت قصائدي قلب كل من له سعادة ولن خاد الأمن